muy Africulture urbaine bi ñuy teg chaque année te léegi moom nekk mu nekk 5 millions yam foofu ndax duñu doon def chaque année ñu yokk mais ci 2013 bi nga xamante ne ngaa ko jël na flow up bi boo ko jëlee dañ lay defal benn projet EP ngaa ko jël ko ci beneen année bi muy 2014 ñu defal ko EP EP bi génn def feuille flamme ci deuxième édition bi si le Moses bokkee woon ci flow up biñ tegee 2 millions je me rappelle bi ñu demee si Colissi. ngaa ko di génn tasee nañu muy bége moo sës naan ko bon sens ñun bi ñuy jógee bawal di ñëw jamono jooju réel woon dafa neexoon nice ci lañ joxe en exclusivité muy son bi mu ànd ak sip yi muy dimbali leen ñu mu nekk son bu nice son bu engagé boo xamante ni jamono boobu réew mi dafa metti woon lool lool ci lañ amee exclusivité bi ci réel one ngaaka nag bi mu jëlee flow up continuer di def succès di def succès donte flop ñu fa jaar bëri na ci rappeurs yi siiw moomu jaar na fa wala lyrical euh, mën naa reptile ñu bëri jaar nañ fa euh, ak jamono boobu ñu doon def underground bëri na trop Kër Massar xam nga euh, waa LGK sama gars yi ñoom ñoom Zow xam nga Renfly ku lim juum xam nga mais quelque temps ñuy dem ngaaka ndog dal ko. mu tëdd jeel ginaaw bi nga xamante ni tëdd na jeel dib ñëw mais dib da doon bëggee Ngaaka Blindé daf ko doon bëggee am na émission aaru mbedd boo xamante ni couple Ngaaka yi la doon teg muy daf koy bëggee mais li ñuy wax rek succès bu ñëwee te ki nga xamante ni yéen ñaar yéen a koy defendoo faw tendance day am ku nekk day xool noo jiitoo mais jamono boobu bi mu nekkee jël soo musaan laaj dib donc du wax si moom lu ñaaw mais du koy ñaanal mais du si nangoo sori bi ngaa ko ñëwee nag waat ko waat ko ba ñëwaat nekkaat ci ba bokkaat parce que xam na li koy xaar faaw mu ñëw moom mu ni damay nekk au sommet dib di dem di dem di dem dib dib sa jamono boobu classé sax du la du la du la tontu ba ni reptile di tase xam nga ay wan litkal di ko classe bi muy def numéro 10 xam nga jamono boobu jàllee boo ko dee laaj dib danaan la man classe bon kiiwu si surtout saaga yeeg affaire yooyu noonu donte classe mom, comme li gars yi di wax naan ay classe waroo di xasante ak affaire yooyu noonu man classe mun naa koo wax xasante ah parce que ay baat yu ñaaw rek nga siy dégg bu dee ci kaana yi ngay wax même ba si kaana yi ndax boo digloo classe euh, bigi entre Tupac muy enema wax yu ñaaw yi nag Tupac wax na ko si euh, bigi kon peut-être Dip moom xëy na dundul saaga waaw moom bon par rapport ak ngaaka buy classe nee na moom euh, hip hop lépp si am saaga te ngaaka da koy def ci ci saaw ne day saaga ak yëpp léegi dib nag moom euh, toog benn instant deful projet deful benn projet toog na presque trois ans mooy bi mu génnee après albumam bi da ngeen doon annoncé ay annoncé ay dib quinzaine dib quinzaine ñuy toog di xaar di xaar di xaar chaque jour ñu naan dib lu muy xaar lu muy xaar par la suite mu génne projet bi mais bi mu koy génnee fekk na ngaaka mu ngi au sommet mu ngi ci kaw. waaye nañu waxante dëgg. Ngaaka toll moment bo xamanteni il est productif limu produire dafa bëri parce que jamono bobu mu ngi doon génn ay vidéo texte mu ñëw teg benn projet boo xam ne continuité la. muy Nowlet freestyle. ñu delluwaat ci ginnaaw parce que Ngaaka avant muy dugg jeel defoon na contrôle freestyle benn la si jot publier forme mu dugg jeel bi mu génnee contrôle freestyle yooyu ni mu ko defee woon tur bi la changé tuddee ko Nowlet freestyle ndax da doon wax chaque semaine day génne benn léegi bi mu ñëwee chaque semaine muy moom mu ngi doon 100 benn mais def grammes yemale mais après bi mu ko defee cent grammes affaire yi dem boobu ko euh, commencé publier ci plateforme yi te jamono bi ko ngaa di def muy Sénégal politique bi tar gars wax politique politique moom mu ñëw dugalaat gem bi gars yi bàyyi Sénégal gi yëpp animateur mbalax yi mu ñëw moom ak Akhlou Brick après tamit No Let Free Shy moom ak One Lyrical après invité si ay New Génération ou Zeg Buzz Double M ak ñeneen ñoo xamante ni tamit euh, xamaale nañ leen ci No Let yi nga ngàgg si deux mois yooyu mu téye ko ci kaw après Dip gis Guiss annoncé albumam lépp fi la ñu fekk bi mu génnee album bi lu bett ñëpp pour man du tontu Ngaaka Blindé mais ci top cinq yi mu ñëw classe Ngaaka Blindé mooy ni sa king la di lëmbal ci kanamu prési mooy Euh, nga ko Blindé bi mu euh fecc ci kanamu président nga ko woo ko di continuer ci album bi promotion yi fu mu koy def di tudd ko Blindé di ko tudd di ko tudd ba ci mom sax album bi wax na ni lépp fi lañu fekk cover bi bokk na si maanaam moom dafa dafa décider changer lu bëri ci côté musique manam dafa ñew bare dal même nee na sax ku ko classé léegi da tontu té lool non daaw ñu dégg di ko wax nga gis ni Dip mom pare na ba si moom nee na sax musique bi sax fas yéenatul maanaam di ko raar xanaa moom nee na mu dee mi ngi doon def émission moom ak DJ Baara bu ñuul maa ngi koy bëggee si laa ko doon seetaan muy expliquer lu mel noonu nga xam ni moom instant bii nii kon teg na bët ngaaka ba ci récemment am na émission bu mujj def boo xamante ne maa ngi ko doon déglu mu ciy waxaat encore di si tuddaat ngaaka ak émission bi doon def ak Pape Sidi Fall mun a wax naan ngaaka la mais ba tey déggoo leen ngaaka tudd ko ba tey jii nii déggoo leen ngaaka tudd ko fenn fenn fenn te album bi album bi presque moom Dip Doundou Guiss lim si clash si Ngaaka bëri instant bii nii Dip ni ko Ngaaka jiitale woon bu njëkk mu bëggoon nekk o sommet Ngaaka dugg na jeel moom mu tee ko Ngaaka jaayantewaat na ko ba nga xamante ne instant bi moo nekk ci kaw à chaque fois Dip di ko tudd di ko tudd di ko tudd te loolu man dama gis ni tendance bi mooy que Ngaaka mi ngi si kaw kon Dip instant bi bëgg na ko fekkiwaat maanaam nekkaat fa mu nekkaatoon daa si hip hop hip la rek man sama xalaat laa joxe kon jamono jii nii dib dund gi lu mu daawul def mu ngi koy def kon xëy na raar bi nga xam ne raaroon na ko si la ngaaka ko doon profité liggéey ba am lii mu am kon dib tamit dina ko liggéeyaat ba roppiwaat ngaa ko te loolu la rek àdduna moom nii la rek demal boo demee maa ngi ñëw wala ma demaat nga ñëwaat c'est ça am na ñoo xam ne succès dañ koy téye duñ ko bàyyi comme le cas buubaa Bouba Bouba nee na moom bés bu deewee a France de parce que moom mooy yëngal mooy def lépp ba mu ba tey depuis des ay des années buubaa mooy jaxase géemu français ku ko neex mu siiw kon ngaa ko teewoon kon dib teewoon na ko instant wat mi waat si ay loxo yi ngaa ko noonu la rek ci sama jàngat boo xamante ni def naa ko yéen tamit seen euh, commentaire euh, naka ngeen gise tendance bi entre Ngaaka et Dip Doundou gis lépp si fair play rek ah surtout ment les fans de Ngaaka Dip Doundou Guiss ah waaw ñun hip hop lañ hip hop la ñuy cons dañuy joxe suñu xalaat faruñu si fenn mais tamit. lu ni fàng kenn du ko jeex gars yi acca ci commentaire yi te bu leen commentaire ba pare bu leen fàtte ba seen cloche notification pour ñi nga xamante ni bëgg nañ vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko am te ngeen di aimé di partagé jaa ngeen jëf